que Ablaye Sy moom lañu pare ne pour euh, final bi ñu ñëw nag ñun pour jàppale ko Ablaye moo toog suñu wet moom moo jiite mouvement conscience citoyenne fii ci pour gëm sa bopp kon ñu jàpp ni teraanga bu ñu defal mouvement gëm sa bopp teraanga bu ñu defal Euh, le président de la République Macky Sall mais bu ñu defal mouvance présidentielle ci wàllu stade bi aussi am nañu yéene nañu ginnaaw jàppale maire pour bi fi nekk pour que ñu defaraat stade bi mën nañ ci dem ci ay pexe mën nañu fexe tamit ba ci wàllu coopération internationale ak euh, euh, relation yi ñu am ñu ànd ci ak mairie bi ba maire dëkk bu mel ni pour am stade bu bu mucc ayib en tout cas ngi encouragé bu baax euh, Ablaye Sy nga xamante ni xale la du xaalis na jaay waa Pout mais jikkoom ak engagement am auprès des jeunes la ko waa waa jàpp nañu daal nécessité la lu jàmp la parce que xale yi. Pout mi ngi màgg te bëgg nañu football ci stade bu baax ñi ngi wax ni dinañu am xalaat bu ñu am dinañ ko partager ak mairie bi ak suñu frère Moustapha Sarr jàppale ko ci ba ñu trouver solution parce que gis nañ ni mais euh, le ministre Makhtar Ba mi ngi def effort yu am solo pour rénover stade du Sénégal yaakaar nañu stade bu war na ci bokk. sama mbëbët sama soxla li ma gën a bëgg suma àdduna mooy pour taaru muy pour bokk ci dëkk boo xam ne tey mooy dëkk bi gën a feeñ ci àdduna bi ci loolu lépp loo xam ne mën naa ko man sama côté mën naa ko maag sama DG muy DG Maodo Malick mbay lépp loo xam ne mën na ko ñoo ngi ci apporté pour stade bi nag bi ngay wax nii man ak DG ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo et maire pour bi incha allahu rabi dinañ ci liggéey ba lépp loo xam ni tey fii ak at bii di weesu at bii di ñëw di ngeen gis ni stade bi am na changement bu rëy loolu mooy sunu taxawaay loolu mooy sunu bëgg-bëgg loolu moom mooy taaru ko loolooy jaay destination mobilisation bi am na euh, ndaw ñi ñëw nañu te constaté nañ ko bi ñu amul violence ñu siy remercier sunu parrain bi ak sunu marraine ak ministre des sports nga xam ne yónnee nañu délégation jox ñu ay neexal yu tax loolu sax ñu ngi remercié. waaw lu jëm ci wàllu mbay stade bi am na jafe-jafe. waaw am na jafe-jafe parce que ñi ngi indi projecteur pareegul nag yàgg nañ ko moom leen tàggagul. leen bi même ak projecteurs yi su paree pelouse bi war nañ ko parce que euh, même bu tawee bu nawetee bu tawee du ñu mën a football même bu projecteur nekkoon donc loolu aussi war nañ ci bàyyi xel je pense que monsieur le maire mu ñuy dégg dina ci gën a ak conseil municipal bi merci merci. la troisième fois ñu may def marraine de la finale vraiment may représenter Viguène Ndour parce que may la présidente des femmes micro-entrepreneurs. jigéenu Waapour parce que ñoom ñëpp a topp sama ginnaaw mobilisé ñëw ànd ndoog man bi vraiment mu nekk lu rëy si man waaw.